Merci de rester avec nous. Le grand format reçoit pour ce présent numéro Cheikh Ahmed euh, Tijanba, le directeur général de la CDC et la Caisse des prix de consignation, par ailleurs responsable euh, politique. Monsieur Cheikh Ahmed Tijanba. bonjour. Wa may heureux de Dakar Actu ndax comme nous l'avons koy defee saa su ne ñëwaat ngeen tey mu jour bu mag. ngeen nemmeeku ma laaj ma aussi li ma xalaat si si korité bi. tey ñu ngi amal li nga xamante moom mooy euh, julli korité bi d' abord déwénati ñu wax la également wax ak Sénégalais yi lan mooy say vœu ci feetu Aïd el bi ñu magal tey. waaw li nga wax lu am solo la tey dafa nekk euh, bis bu màgg ñu si profito di ziar di baalu ak ñu tàmbalee ko xalif généraux yi nekk ci dëkk bi yëpp euh, toftal ti kilifa aada yi. Euh, toftal si euh, sama mak yi nga xamni ñoo nek biir medina euh ñom Seydou Gueye ñom Mamadou Ndoye ñom Abdoulaye Seck euh, ma baña faté monsieur le maire de la medina parce que c'est le premier magistrat mooy suñu kilifa si biir euh may ziar waa Médina ñëpp di len balu ax ngén même aussi ma beral loxo le président de la République parce que xam ngeen ni mom bu yalla soté ci mom xéewal ak tawféex ñun ñëpp dinañ am tawféex am xéewal ñun tamit ñu koy ñaanal di ñaanal njabootam di ko ziar ñu tam ñu koy baalu ak alors ñu euh, tey ay Fir ci contexte bu particulier nga xamante moom mooy euh, mbas mi d' abord nan nga jàngate nga xamante moom mooy évolution lii di euh, coronavirus fii ci réewum Sénégal. waa xam nga man démb bind naa ko sama page Facebook nee naa mbas mi dafa dafa doy waar virus bi lu doy waar la dafa mel ni daf ñu bëgg a conditionné. nous voulons imposer un rythme de vie comme ni ma ko waxee dem mu séquencer suñu àdduna yenn saa yi mu ñëw sont venus yi mu làqatu yenn saa mu jaar fii jaar fële ba nit ñi am euh, may d'accord président de la république mesure yi mu jël defe naa seetlu ngeen état bi dès les premières heures euh, de la pandémie jël a ay mesures yu takku des mesures hardies euh, pour les populations waaye comme ni ma wax rek bi nga xamee ne xam nañ ne mënuñu tëj suñuy bureau mënuñu génn suñu ay tool mënuñu tëj suñu ay usine ndax loolu si koom day yàq lu bari si dëkk bi suñu xale yi aussi ñi nga xam ne ñu ngi jàng mënu leen aussi bàyyi kër bañ jàng bañ def examen mais fàttali ni ñun ñi xam ne def nañu ay année blanche loolu dafa metti suñu cursus donc loolu bi président jëlee ay mesures nañu nañu jàng du ñuy dundeex virus bi ñu d'accord si donc euh, il faut apprendre à vivre avec euh, man ku lancer un appel à l'unité parce que je suis convaincu qu'unis solidaires et disciplinée, nous pouvons vaincre le diable ce diable de virus mais si nous defee lu safaan nous avons un problème donc nous avons a nous surtout au niveau de mon mouvement et samay ñi may nous euh, ñu joxe ay en tout cas avons une suggestion ci Mirmi. ñu ne nit ñi nañ leen jox ay jumtukaay yoo xam ni dina leen mën a aar def naa loolu la ñu tàmbalee ñu wër këru diine yëpp yi nekk biir Medina daara yi ak fépp foo xam ni nit ñi dafay am mbooloo ñu jox leen jumtukaay yi nga xam ni moom na suñu doole may bi loolu wéyee bi nga xamee ni euh, xam nañ ni mbir mi dugg na mi ngi commencé tar si biir Medina nit ñi commencé sonn parce que liggéeyatuñ Nous jug li nga xamni yalla may nañ ko suñu ñu ko Medina ay parce que nous na len émission que nous dañu séquencer li prévention soutien mais aussi vivre avec le, virus parce que nous ñi par exemple ñi nga buntu kër actuellement seen capital nous nañ ko amatuñu dara donc état dafa war a wallu commune wallu waaye ñi nga xam ñun ñi xam aussi nous sommes des relais sociaux dañ leen war a wallu dimbali leen te defe naa ni loolu ñun si loolu lañ jëm donc euh, encore une fois euh, nañu apprendre à vivre avec le virus te aussi de respecter les mesures barrières euh, ñun teel nañ jug aussi daan ne nañu bàyyi joxoñ bi stigmatisation boo xoolee samay post Facebook dama ko siy wax yàgg na avant même nit ñi di ko coow ne wala la joxoñ bi mooy indi musiba si dëkk bi parce que léegi di nga gis koo xam sax dafa am paludisme tëju këram ndax ragal na waa koñ bi ne di ko joxoñ ne moom moo indi feebar si biir koñ bi te loolu mi ngi indi ay musiba si biir dëkk bi kenn ñemetul génn dem hôpital parce que yaakaar nga ni boo génnee jël oto dem hôpital bu ko nit ñi yëgee ne da nga am looy laax donc loolu ñun wax nañ si bi ñu wax nañ ne nit ñi di sol ay masque boobu c'était pas obligatoire Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule solution. Il faut que nous ayons un masque. Dembo Mangi Togn, di wax gaay ne len ex nañ ci corité nit ñi dañuy demalante man mi di wax ak yeen ma paré ni juk dem am ñuma ziar sama ay kilifa sama way bu way jur bu jigen faaw ma dem fa euh sama nijaay faaw ma dem fa mais néwon na ñi nga xamni dañ leen di fekki ñom seen bop nañu tak ay masque bu kenn am kersa nit ñew sa kër ngay tak masque parce que kookee di ñëw sa kër xamoo fu mu jaar xamoo ko mu nuyu xamoo fu mu nekkoon te mbir mi kat xamul doom xamul jarbaat xamul maam xamul sët képp ku nekk war na ko mën a transporter te loolu wóorul moo taxoon démb ma lancé un appel ne leen ci biir Korité bi nañu moytu bu ñu demee si kër jàmbur donte munuñu bañ ñàkk bañ a dem bu ñu fa demee tamit ñi ñuy waxal yépp nañu takk masque yow mi fay dem aussi nga takk masque masque bi moom. moy principale préoccupation actuellement. alors gestion euh, Covid 19 qui loxoy euh, état bi def euh, polémique y a ci ay mesures confinement couvre-feu après déconfinement réouverture on va dire des lieux de culte est-ce que la na polémique est xamante et c'est justifié ci gis-gisu Cheikh Ahmed Tidiane Ba. président de la République jël na ay matukaay parce que aussi dégg naa sax des wax naan président dañ ko def chantage mais président dafa war a sax population di ko def chantage.

question dañ lay chanteloo du question dañ lay je ne pense pas que le président tel que je le connais loolu di dal si mais defe ni il essaie toujours d'être à l'écoute de sa de sa population moo tax mu jël mesure bi mesure bi mënuñu ko woon sax ñàkk ba ñu jël wax dëgg ndax dëkk yi nga xam ne nous gën a kawe si comme si quoi leneen nous seen bopp dem nañ ne ba xam ni bu ñu tëjoo seen i kër dëkk ba mooy tëj complètement donc ñun aussi on essaie de s'adapter donc président a na ay mesures et encore une fois la principale mesure mooy ñuy defaraat euh, ànd bi loxo yi ñu koy raxas di sakk suñuy masque naa bu ñu ko takkee lu bëri euh, dina dina du du du du ñu egsi suñu kaw maa ngi wax naan bu ñu xaymoon bu ñu mënoon a xayma bu ñu jëlwoon mesures yi li fi xew biir Sénégal xëy na la kenn du xam donc euh, on salue les mesures prises par le président de la République ñun à notre niveau on essaie aussi de de l'accompagner alors, vivre avec le, le virus, n'a mais est-ce que euh, l'après-Covid, euh, euh on va dire, est-ce que Khel euh, mën na mën dal wala Khel euh, mën na a am njàqare ci après nu ñu mën après lii di mbas mi. après mbas mi moom dina metti loolu moom umpul kenn l'économie connaîtra des difficultés certaines ça c'est c'est clair loolu kenn mënu ko kenn mënu ko l'enseignement xale yi am na ñuy jàngi am na ñuy am mbir mi gàllankoor na seen jàng te dina am ay répercussions yu bëri seen seen cursus donc loolu moom loolu ñëpp xam nañ ko moo tax je pense que mesures yi état bi jël aussi euh, daal di ne dañuy teg le Covid euh, le comité Covid 19 ñu ñu teg ko en place jël ay nit ñoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm si lu ne moo xam sociologie la moo xam euh, santé la moo xam leneen la ñoo ñëpp boole seen i doole ak seen xam-xam pour ñu aar population yi je pense c'est important économiquement aussi le président a mis ay mesures pour accompagner les entreprises donc je pense que c'est des choses à saluer et je pense que dina amortir choc bi nga nous avons mënoon la Covid 19 Cher na. Cheikh Ahmed Tidiane Ba tey nga CDC euh, vous fa kii di euh, Aliou nan la euh, comment se porte cette boîte là. mais CDC la CDC se porte bien Je suis venu c'est fekk naa prédécesseurs euh, teg nañ ma si yoon ndax am nañu ay projets yu bëri yoo xam ni euh, teg nañ ko loo xam ne ñu ngi koy wéyal euh, may rappelé rek ne CDC c'est comme une start-up comme ni ma koy expliquer c'est-à-dire que entreprise bu bees donc des difficultés on en connaît comme tout le monde am na ay difficultés c'est c'est c'est clair parce que am na loo xam ne ñu koy togg pour mu gën a mu gën a dox mu gën a jax président di ci accompagner et, le ministre mon ministre de tutelle le ministre des finances et, du budget ñu koy gërëm au passage donc nous ñëpp ñu ngi jappalé pour que ñu tek affaire bi ci ci y a ay projets yu intéressants sur le plan du logement social euh, euh, euh d'autres investissements yo xam ne nit ñi duñ ko duñ ko xam parce que may rappeler né CDC aujourd'hui nous sommes actionnaires dans la Senlec euh, à peu près 10 9,4 exactement euh, je donne d'autres exemples par exemple usine bi nga xam day def ay euh, day day fournir de l'énergie euh, à à la Senelec muy euh, euh, boxul usine bi nekk boxul nga xam côté Dagana yooyu ñun si lañu bokk donc on est actionnaire dans la société holding bi nga xamni moy gérer usine bob donc loolu yeb ñu ngi si ak yenen ak yenen euh hôpitaux yi nga xam hôpitaux yi ñu xam ñu koy tabax comme bu Afsadar bi bi nek ci corniche bi ci kaw fële ñu ngi si ak yenen ak yenen yo xamni ni mën nañ ko faram-fàccee expliquer nañu ko defe naa loolu aussi dañ ci gëna gor gorlu parce que dama japp ne CDC communication bi dafa dess am na ñu bëri ñu xam lu ñu liggéey inshallah allahu ci na émission dinañ ñëw wax yeen euh, ñu toj ko ba nga xam ni ku nekk dina comprendre li ñuy def ak fiñu jëm. alors tay euh, en tant que njiitalu CDC tay euh, nan ngay def ngeen gëna mëna manam faire connaître bobu les boîtes sénégalais yi. waaw je pense que ñaari mbir la ñuy sukkandiku pour mieux faire connaître la la la la CDC benn bi moy euh yeen euh les organes de com ñu liggéey ak jën te defe naa sumb nañ ko ñu commencé liggéey organe de de communication yu bëri pour que ñoom ñu jàppale ñu parce que ñoom ñoo am expertise bi pour Sénégal yi gën a xam CDC beneen bi mooy jëf nit moom boo jëfee rek nit ñi gis weddi gis bokku si je pense que euh, nous sommes sur de grands projets yoo xam euh, mes prédécesseurs les ont lancés euh, notamment à Bambilor sur la cité des Mamelles etc. cetera donc yooyu yëpp

dafa am lo xamni dañ koy réeree mbir man dama yàgg dundou la vie associative à la Médina je rappelle que vers les années 96 euh, Bobu, c'est moi qui dirigeais la jeunesse de El Hadji Malick Sy suñu mag ju baax et j'avais créé l'association Médina 2000 ay xale yu bëri nek Médina bokk donc Yag na ci di def politique j'ai été après le président de l'ASC Diako donc nekkoon naa si mouvement nawetaan bi aussi après les contraintes scolaires et euh, euh, peut-être professionnelles ont fait que j'ai observé une trêve mais maintenant il y a ñoom euh, li may def nii dama ko yàgg def je me rappelle c'est ce que je ay ay ay GIE yu créé un di forum bu entre des ONG et les ASC etc. donc loolu yàgg naa si liggéey yàgg euh, donc contrat de confiance Bobu yàgg légui nak bi nga xamé ni japp na ni nous n'avons pas le droit euh, de rester à la marche. parce que mbir mom dëkk mom ñett ñi ñoo koy xam-xam mën-mën ak am-am ñett a euh, bu Il ben manquer rek affaire bi day soxé donc euh, nous nous avons pensé que en tant que intellectuel en tant que responsable fils de la Médina am na loo xam ne war nañ ko delloo njukkal suñu quartier moo tax ñëw soobu si mbir mi di ne suñu xalaat nag ak suñu xel ak aussi li ñu yàlla wërsëkale as tuut te loolu xëy na nañ si dellu siwaat parce que euh, man dafa am neneen nu ma gisee nu ma gisee politique xëy na boo ma posé yeneen question dinañ si suux euh, comme ça ma euh, ma ma wax la man di ma gisee mbir mi mais loolu rek moo tax ma nekk ak waa waa Médina bëgg nañ lool di ñaan yàlla yàlla vraiment def Médina une cité

donc nit ñi dans le combat politique dañu waroon di ànd ak man ngir dara ngir dara waaye conception bi ñu am si politique te man vraiment may ñaan yàlla mu changé parce que man dama comme ni ma la wax yàgg naa si politique dama dëkkoon avenue Blaise Diagne euh, dëkk à côté euh, ñoo xam ni dañu dañu dañu nampatal dañ leen nampatal ci politique des jumeaux ma leen nuyu au passage Assane Ousseynou xam ne fa lañu toog ñu naan ataaya euh, di waxtaan ci Médina euh, mais ñoom conception bi ñu ma jàngal ci politique ak bii bokkul parce que ni jàppee politique Médina du Médina rek sax fépp ah c'est de la roublardise nooy def ba galgal ki nekk sa kanam au nga toppatoo askan bi yaa ngi xool da ngay galgalee ki nekk sa kanam bu joxee benn saaku ceeb nga dem joxe ñaari saaku ceeb te loolu sax ma si kontaan loolu parce que saaku ceeb yi ñu joxe yëpp ku nekk ñëpp joxe waa Médina ñu si bénéficié wu <laughs> loolu moom dañ koy dañ koy sant yàlla waaye il faut que nous xam que c'est du ponctuel parce que ki lay jox saaku ceeb tey moom day dem Ses problèmes day rester ki lay jox saaku ceeb day dem que tes problèmes vont rester Je pense que nit ñi dañu war am conception un autre paradigme en matière politique au lieu mu lay jox sa ceeb est-ce que a une vision est-ce que le système boo xam même bu dul yow di nga si mën dugg ba nga xamni li nga bëgg dina antu ndax say dom buñu suivre système boobu nga xamni amul kenn ku koy gérer bu si duggé li mu bëgg dina antu aujourd'hui encore une fois moi je dis buñu duggé ci politique bi je l'ai dit dañu dire néan euh, si on ne le fait pas euh, c'est non assistance à population en danger Médina dafa ci cité bu reuy am des avantages certains par rapport aux autres quartiers comme damier Medina rek Sénégal presque nga naan dem angle 27 nit qui yóbbu la On foofu contre quartier mais nous, on est vraiment avantagé ensuite on a infrastructure am stade on a infrastructure sanitaire et cetera am nañ lu ne loolu dañ ci war a capitaliser réfléchir xool naka la ñuy développer suñu quartier en nous adossant nag aux techniques technologie moderne am na loo xam ni dañ ko war a développer ñun li ñu wax mooy que ni par exemple bëgguma di faral tudd sax mais le maire qui est là euh, wax dëgg xëy na am na lu mu def parce que ñoom contrairement à ce qu'ils pensent man de temps en temps ma jàmbaarloog sama gars yi sax ne leen lii waa ji def baax na bu defee lu baax dañu war a tàccu parce que nag yoon moo ko may yenn prérogative yi quelquefois ñu am problème ay affaire ay suuf ak yooyu mais comme man sam xam naa si dara parce que quand même loolu jàng naa ko ndax lii lii bàyyi parce que parce que kii mais yenn saa ñu xajamal ko tuuti parce que dañuy politique aussi ah yenn saa mu dóor si tuuti tuuti kii rek L'homme c'est normal <laughs> comme ça parce que aussi moi je m'adapte à certaines choses même si je veux un changement je saa yi ma adapté donc ce c'est pas méchant mais dans tous les cas man je réaffirme à haute et intelligible voix musuma gàllankoor loo encore encore commune bi ñu koy def si euh, si euh, si Médina non ça c'est pas mon souhait parce que euh, nous aspirons à autre chose les plus loo la Médina ñu de naa sax ay jamono ñuy wax ay ay Auchan xaw ma lan bëgguma koon tudd sax c'est seen seen seen organe bi na balmo, baal ma mais euh, yàlla mi ñu tiim de xam ne euh, man de loolu vraiment wax dëgg xaw ma si dara wax dëgg gis naa ñuy brandi benn papier naan dañ ko enregistré foofu mais y a des milliers de de choses qu'on enregistre aux impôts donc vous fekkee comme lu fois fa enregistré ñu ñu woo ñu bi parce que <laughs> affaire yi du dans le parenthèse mais mais mais dans tous les cas man ma dellu si li nga ma posé question man je ne pense pas ma obligation envers les femmes et les ñi nga xam dañuy ànd man di ay militant, dañu war a jàpp une ñun opposition la ñu nekk biir biir Medina. du ñun ñooy rek pouvoir bi nañ ma jàppale si ngor mais du tere li nga xam ni dama ko doon def bërki démb ak démb muy accompagner les populations maa ngi koy def. mais yow ci say euh, ambition Medina, est-ce que tu Cheikh ma bëgg na nekk maire Medina encore une fois li ma la wax sànq mooy moo am solo. du question ne man physiquement bëgg naa nekk maire Médina mais bëgg naa lool mbir yi bëgg naa lool li nga xam ne ñi fi nekkoon def nañ ko ba pare muy Ameth Diène muy Birame Sassou muy l'actuel maire ñun ñu am lañ si teg mu nekk njëriñu waa Médina man li ma bëgg mooy keneen mën a nekk mair c'est possible mais li ma bëgg mooy sama idée ak li nga xam xalaat naa ko mu dugg fa encore une fois dëkk xam-xam am am ak mën-mën ñoo ko yore

parce que man dama nekk fonctionnaire d'abord nekk citoyen te gëm ko li ma gëm mooy un maire il faut le respecter moo tax sa njëlbeen bi euh, ma ma ziyaar ko nuyu ko baalu ko ax loolu amul problème je parle au maire euh, mi ngi def li mu mën euh, moi j'ai pas de de de contentieux ak moom xëy na am na lu fi jotoon am mais mais loolu si li ma wax rek la c'est-à-dire que ni. il faut que ñu xam ni politique du du du du du blandise du saaga du menacer loolu baaxul ci politique boo ko defee aussi amul njëriñ parce que encore une fois man man booy Medina laa Medina laa juddoo fi laa yaroo kenn mënu ma xoqatal ñoom loolu la ñen ñenn ñi loolu lañu jàpp cheikh boobu ñu ko saagee après dugg na fi génn loolu du sotti parce que dañu jàpp ni gis na peut être gis na intellectuel

mbalitu tubaab parce que damaa jóge Medina dem ba point e di xool mbalit yi ndax am na benn poupée bu ñu sànni wala neen donte sama famille sax c'était pas une famille euh, démunie mais affaire xale dañ daan dem di lu nekk def naa ko an ma amay daa ak la allka unnaal mu ak la am xa amoo mën naa lakk kàll c'est-à-dire bi ñu daan def mooy suñu yaay yi bu ñu comprendre ñun ak samay xarit ñoom Moussa Sall ñoom Karim Fallax yooyu Maintenant, la lakk kàll. non kàll moi, c'est le verlan. c'est le verlan sénégalais. moi je sais parler le verlan sénégalais. maintenant la judo, fa laa yaroo. Hmm. bu kenn defee ne mën nga ma tiital wala def leneen non li ma gëm laa gëm te si laay wéy amul problème. Hmm. dans le respect je respecte tout le monde kenn mësuma dégg ma wax lu safaan wax lu rafet du ma ko def te du ma si ñaax kenn je dis tous les jours à mes partisans amna yo yoo d'accord ma si am benn image bi ñu génne woon temps yi mais j'ai dit aux gens moi je suis pas d'accord du ma dugg ci lolu jaruko nañu tagat wa medina si si si politique bo xam ni daf leen won vision organisation ak fi jëm si tous les plans ñun lu bari def nañ ko medina te duñu mer, maire mais on a commencé des projets je peux donner des exemples biñu ñu gëstoo ñun xol nañ ne Medina, malheureusement, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont en prison. Mais Fatri, la prison, euh, jombul kenn ak hôpital Lol, mom, dañ ñoo ko jàngal yar ñu si ñu yërëm leen lool ñu il faut un programme pour les prisonniers ñu dem bind ko am lu ñu si xalaat te loo xam ne bis bu ñu bëgg yegg dañ ko appliquer parce que on a des moyens ñu suñu moyens bëriwul nañ wut ay avocat nous nga xam ils sont en prévention ñu dem jàppale leen nous waajur ñi nga xam ñi ngi si biti sonn lool tous les jours ñu yóbbu ceeb ñu leen di jox ay jumtukaay yu mel noonu suñu doole fi mu yem ñu jox leen ko c'est un projet boo xam qui nous semble majeur à la Médina parce que la délinquance kenn mënu ko on avait un projet aussi pour quand même créer des champions à la Médina parce qu'on s'est rendu compte que, oui, il nous faut d'autres Seydou Gueye, il nous faut d'autres Cheikh il nous faut d'autres Souleymane Boub, d'autres même Ndoye Seck, d'autres Eva Aoumari Khol, etc. Bablaye Seck. Nous avons un groupe de jeunes, Sans. Nous avons ni dañ leen di des di top, les meilleurs Les bëggoon jël nga xam ni dañ suivre sur le plan scolaire di leen dimbali wuute leen ay bourses def leen ay camps de vacances etc. Il di accompagné, un accompagnement scolaire c'était un projet challenge 2035 nous sommes encore d'actualité mais dafa am lu ko gàllankoor ci diggante bi parce que aussi nous, on n'a pas tous les moyens contrairement à ce que les gens pensent euh, dañuy def lu ñu rek mais ñu yaakaar ni bis bu ñu budget c'est un programme extrêmement intéressant d'ailleurs si la si la un autre projet si le projet Bobo en faisant euh, un concours euh, j'ai 12 ans j'amène mon père à la Mecque loolu def nañ ko daaw daawati géej parce que euh, non ren daaw mais ren mënul am ndax euh, affaire bi ni mu et qu'est-ce qu'on lu ñu def les les les enfants yi nga xam ne sélectionné woon nañ leen les meilleurs dañuy def tirage seen biir jox leen ay billets mag ñu doon jox seen i waajur nga xam ne non seulement di nga jàng bu baax mais di nga dem jox sa pap billet mag loolu ku jox sa Pape Dieng Mack def naa nga am 12 ans jox sa Pape Dieng Mack defoon nga ko lépp te loolu l'avantage c'est que le parent daf lay pousser toujours ngay jang parce que dafay bëgg bien mag xalé bi aussi day bëgg teral waajuram donc day jang et c'était un projet c'est un projet extrêmement intéressant ak yeneen ak yeneen euh, sur le plan sportif on a des des projets des projets de euh, de développement de la Médina et cetera mais loolu yëpp dinañ ko teunk ci ben document bo xamni bu joté dinañ ko jox wa Médina ñom ñu xamni ñun maintenant. alors euh, cher Ahmed il y ay un euh, constat de rapprochement de Seydou et et Mère Bambafal. Si Bamba Fall euh, soi-disant rapprochement yow rapprochement monsieur le ministre Seydou Gueye ak monsieur le maire Bambafal, Fall y a un ko wax ah, man man c'est le représentant de la paire. mooy njiitu APR fii te ñun dañu tënku si biir APR donc mën naa jàpp ne aussi mën nañ ko jàpp comme njiit te man jusqu'à preuve du contraire si biir bennoo boobu laa bokk loolu laa jàpp te yaakaar na ni Seydou Gueye loolu la jàpp donc ñun dafa fu ñu man ak moom moo toujours euh, bu may poser question naan ndax da nga bëgg nekk maire mais loolu dafa jotagul parce que lo xam dañ koy waxtaanee la man je respecte les gens du ma jug rek di jël ay décision dama bok ci coalition am ay nawlé am ño xam c'est de haut responsable au niveau de la Médina du sax monsieur le ministre rek am na ñeneen ci biir ñom IBS ak Martin ñom enfin Martin sax bokk ci euh, bokk wala suñu coalition mais am na ñeneen ñom Pape Jean et cetera groupe boobu yëpp ñom ñëpp ay kilifa ño xamni dañu bok suñu biir coalition ma war a waxtaan ak ñoom si lépp donc Cheikh ba du tëpp tëpp rek ne moom mooy candidat loolu yenuwul maanaa ko encore une fois li ma jàpp mooy monsieur le ministre euh, xëy na euh, peut-être euh, mbirum état moo ko moo ko tënk moom tamit ba muy def rapprochement boobu en tout cas physique nit ñi di ko gis mais jàpp naa jusqu'à preuve du contraire que man ak moom ñoo far maintenant Monsieur le maire, encore une fois, moi je n'ai rien contre lui. Euh, tout ce que je dis, c'est que nous devons civiliser. Et il faut bien qu'on comprenne civiliser les relations politiques. Nous devons faire des vision et programme. Encore que nous devons faire une vision et programme, mais mon bilan le faire. Nous devons faire un budget. Mais nous devons faire un bilan. Nous devons faire un te Seydou Gueye bu neex yalla ñun lay andal alors euh, li nga wara a biir medina mais tay bu dee askan wa medina bi tay def sen choix ci Cheikh Ba pour porter ko à la municipalité Cheikh Ba da fay da fay abdiquer and ak euh, askan bi population bi. waaw xam nga moy li ma wax léegi rek c'est-à-dire que man dama bok si si si ben groupe bo xamni ni ñoo liggéeyal président ici au niveau de la medina duma ma tëb jël ay décision bu ma ko defee dama wacc yoon amna ci ay xarit amna ci ay kilifa donc ñooñu il fa ñu waxtaan ñun ñëpp ba paré ah xeyna ki nga xamni moñu ouf ñun ñëpp muy président de la république gis guñu orientation parce que ces orientations seront importantes dans la prise de décision dañu xaar xëy sa du ko joxé waye ñun ay politiciens lañu euh, président amna na bu ko xolé ñu dañ comprendre amna fo xamni bu ko joxoñee ta talu loxo aussi dañ ko comprendre donc je pense que bu joté dinañ xam effectivement euh, limu bëgg si loolu la ñuy on ba jël ay décisions euh, si les Médinois estiment que c'est monsieur le ministre du Gueye moo war euh, maire ou Pape Jean Ndiaye ou Gorgui ou Youssou Diallo ou mon frère Paco Jackson donc ak ku mënti doon je pense que je pense que il faut respecter ce choix ñun ñi nga xam ñoo ànd ñu xam ñoo ànd ñu xool ki gën a taxaw rek ñu jësal ko parce que malheureusement c'est au suffrage direct c'est-à-dire bu ñu juumee teg kenn koo xam ni euh, nit ñi euh, nanguwuñu ko si nous, euh, suñu suñu défaite lay doon ñun ñëpp te loolu ñaan ñu alors vous portez Medina dans votre cœur dans votre esprit tey lan mooy ban vision sa vision tey ci ci Medina, on va dire à court ou à long terme te ban euh, xar kanam nga bëgg tay ci ci ci Médina Médina une des villes les plus. Euh, mais li nga wax moy deug ak ak boy deug. je pense que contrairement à ce que les gens pensent physiquement on vieillit bien mais ñun ay mag lañu légui. Légui moi j'ai traversé ma carrière professionnelle Lepp lo xamni euh mbébétoon naa ko ba may judd de biir euh, biir direction générale des impôts et des domaines mais je ko grâce à Dieu grâce au travail de mes parents mais grâce aussi au président Macky Sall mu wóolu ma ma direction générale des impôts pendant 5 ans muy lu je ma def 5 ans fof. donc euh, defe na le côté bobu mom amatuma lumay xaar Lima ma moy ma mettre au service de la population euh, sànq avant ñuy tàmbali yaa may posé une question di ma

Oui, mais ce yëpp pas koy de côté ce que amal solo c'est je la bëgg que je moi je prends l'engagement si je rek modeste, comme démissionnaire pour me mettre au service de la Médina mettre au service des populations je le ferai en toute responsabilité si j'ai l'accord de celui qui m'a mis dans cette position-là. alors tey ñu ngi ci bésu korité juste rek xaw laa yëngal tuuti est ce que booy medina la eh, nandité eh, jantal mun muna solo muna a sañse comme comme comme cheikh ami tidiane ba waaw mais ñun suñu grand yi fii fekk noonu lañ daan def dañ bu bu cinq heures yi dañ daan génn mais solo ay costume ay taille yu rafet ba large euh, et cetera dañ solo taxaw si bopp koñ yi ak yeneen ak yeneen yoo xam bu ko télé bi donc booy Médina noonu lay mel Médina na jur de grands intellectuels parce que contrairement à ce que les gens pensent j'ai fait un poste là-dessus fii ñu bëri am na sama benn xarit boo xam ne keroog bi ma découvrir ne Médina la juróo dama et c'est le patron d'une très grande société maa ngi koy maa maa dal si comme ça ne ko may pourquoi dina ñëw dellu si parce que les élites de la Médina dañoo war a dellu si Médina on a des avantages sànq pose nga ma question boo xam ne xëy na matuma tontu bi mais Médina on peut tout avoir tout Ben dëkk la ñeenti buntu dañuy wax ties dañ dëkk ñetti gaar mais ñun ben dëkk ñeenti buntu avec des pôles économiques bien identifiés il y a tout la pêche l'artisanat l'informatique tout le commerce lo qui est mën nañ ci pour développer suñu quartier ñun avons la am nañu programme bo xam ñu koy togg te bu bu bu du man il ah, y a même des des gens qui ne sont pas de la Médina nous xam ne ngi ngi même la coopération internationale parce que aussi ki nga xam euh, il faut mu entre gens il faut un réseau parce que l'État ne peut pas tout faire surtout fin après ça va être très difficile donc la coopération internationale devrait jouer le Covid 19 nous a montré qu'effectivement, nous devons développer suñu suñu à l'intérieur développement endogène d'accord Je man sais pas te émission

Euh, ak ñu Maroc euh, discuter ma jël documentation euh, aujourd'hui bis une coalition de maire comme ni Inch'Allah, ko c'est des choses qu'on va appliquer parce qu'on sait maintenant comment on travaille avec les dans les quartiers populaires au niveau de l'éducation mais même sur le plan architectural il y a beaucoup de choses qu'il faut changer il y a beaucoup de choses qu'il faut changer Moustapha wax ne euh, pavage c'est bien mais man tey boo pas si buntu kër sama cœur wéyjur nga xam ñu la famille veut construire là-bas un immeuble mais boo pas, pavee dañ koy donc am na lu tout moi je parlais de séquençage ñu xajamal sama wax lu nekk ñu dugg Mais mais c'est pas ça le problème moi euh, ça ne m'intéresse pas trop mais ce qui est évident c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la Médina la Médina amul kenn kuy xëy ñu dem biir Dakar te doo jaar presque biir Médina loolu c'est une vérité donc mu am na am na loo xam ne mbir naa def ko war a mel am na aussi côté boo xam ne man sama xam-xam màcc na jëm ci affaire impôt te impôt mooy dëkk dëgg la oh, on avait mis en place man je me rappelle bi ma nekkee impôt on a mis en place des commissions de fiscalité locale ñaanoon maire yi ñu créer ay commission pour contribuer am na ñu ko def am na ñu ko deful mais loolu yëpp loo xam ne xam-xam boo xam ne rek mën nañ ko indi ba euh, quartier bi changé euh, changé completement te defe naa loolu yàlla dinañ si dinañ si jàppale bu neexee yàlla. ñu bari nga taxawu ak euh, askan bi lay seetaan moo am askan Sénégal rawatina askan waa Médina lan nga leen di ci kàddu gu mujj gi. waaw di sant yàlla rek bi nga xam ni moom bàyyi nañu si xaaj bi nga xam ni moo fekkee ren feete daaw feete ren defe naa loolu dañ koy dañ koy sant yàlla di sant yàlla bi nga xamee ni boole guñu. parce que aussi euh, dañuy ñaan yalla ñu bañ ci bokk rek si mbass mi am di ñaanal ñi nga xamni ni nañ fi di ñaan yalla ñi nga xam dañu teud yalla yëkëti leen yalla saafara lépp euh, di wax nit ñi déwénati rawatina encore une fois euh, mes parents de la medina aw ma seen fay sa su ne ñu may jappalé mais à travers moi ñi ngi jappalé wa wa waa Médina yëpp je pense que nous avons des projets extrêmement intéressants

xam nañ ne ñun bu ñu booloo euh, ñun ñi nekk côté bi bu ñu booloo wax dëgg war nañu mën a euh, euh, gagner li ñu li ñu bëgg mën na antu en tout cas je je vous remercie encore une fois leen dox dig daje beneen parce que il faut ñu gisee ma expliquer leen CDC li ñuy def lépp ngeen wax ko ngeen jë jox population bi ñu comprendre parce que ce que vous avez dit vous avez parfaitement raison la CDC demeure une structure méconnue te nit ñi ko pas inconnu mais méconnu xamuñu ko bu baax donc loolu yëpp dinañ ci dinañ ci ñëw wax leen li ñuy def ak li ñuy euh, comme ça ñu xam ne nous sommes au service euh, des des populations nous sommes pour l'intérêt général même si par ailleurs nous cherchons la rentabilité des projets yi nga xam ni état bi daf ñu ko dénk jëf encore merci beaucoup ci cette disponibilité mu nekkoon suñu invité kon Cheikh Ahmed Tidiane Ba njiital CDC ci le président numéro rek une émission grand format rendez-vous kon prochainement ci une émission ak ci une euh, invité toujours rek ci Dakaractu jaa encore ndiw ne ti ngeen